ngi noonu mbokk yi dimanche 31 octobre Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo ñu woo ca arène nationale ba daal di boole ñaari xale yu ñu gën a ràññee ci seen génération grand combat bi war a dox ci diggante Tapha Mbeur doomi parcelle ak Ada Fass gone Fass Médina Gueule Tapée drapeau jeu technique Mor Kankang booy yëmbal du xam ngeen leen bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex waaye ay bu ñu feccee ñu daal di jële ji Hercule boole ko ak armée bu ngéwél cey boobu combat waaye nag mbokk yi leen fàtte ni lamb ji nekkatul stadium Iba Mar Diop waaye arène nationale et que en lay doon pay activité sur seen affiche point com daw leen gaaw jënd seen ay code ndax 1000 francs rek la kon dugg leen gaaw ci seen affiche point com ngeen daal di cliquer événement Tapha Mbeur ak Ada nga bës acheter un code bu fekkee da ngaa bëgg jënd ak sa Orange Money wala sa Wave wala bu fekkee da ngaa bëgg a ak sa carte bancaire da ngay bës connexion par mail kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu dimanche 31 octobre ca arène nationale Tapha mbër Ada Fass combat des espoirs ak Fallou Ndiaye nga fi what was this for? yaya kunigwan kunuyarwan cukanelare yaya kunigwan kunuyarwan cukanelare yaya kunigwan kono yaadwan cukane laare yaya kone gwan kono yaadwan cukande laare yaya kone gwan kono yaadwan cukane laare yaya kone gwan kono yaadwan cukande laare yaya kone gwan kono yaadwan cukane laare yaya konegon kono yadwan cukandelare yaya konegon kono yadwan cukane alegon kono jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay amaan mbégte ak contentement bu rëy a rëy tey ñu ñëw fii si géejawaay ñëw si école de lutte Balla Gaye jël si fi benn espoir jël si fi benn ndaanaan ñu koy wax caatu Daouda Fall di ndaanaan nekk si biir làmb di si bay waaram dogal kombaam euh, war a nekk la 4 décembre diggante ki nga xamante bi ni kaaw mooy kaaw gurde ñu jël si ko fa yéene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatoo waaye jibi laataa loolu dañuy remercier promoteur bi nga xamante ne moo tëggoon journée boobu di daal ñu ngi du suñu frère di ndaanan nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah bi mu ñëwee ci làmb ba tey mi ngi ciy percé di ci bay waaram mais comme li may wax chaque jour rek lépp rafet na macha allah parce que làmb kii mën naa commencé mais kii mën naa yeggale Gaston Mbengue nga commencé woon na fi kalaaf ki nga xam mooy ko Nicolaï yeggale ko. aussi tamit noonu la demee làmb noonu la demee tey da ñëw commencé sa morom yeggale ba tax na ki nga xam ne mooy sama papa Jax moo décroché combat bii di diggante Thiatou Daouda Fall ak Kaw Gourdin mu war a nekk la 4 décembre ñu monté ca combat yoo xamante bi nii macha allah damay ragal jour boobu stade bi wàcc ba zéro Thiatou ngi ne ma koy bàyyi mu nuyoo ñu suivre seen làmb TV ñu dugg ci waxtaan bi Thiatou maa ngi lay siyaare. waaw di la delloo bu baax a baax moo doon sans frontière di nuyu Sénégal di nuyu monde làmb di nuyu monde di. nuyu waa Géejawaay bu baax a baax a baax di nuyu waa Waalo xam nga waa Ndimbu waa Kër Momar Sarr waa Cekkeen waa Yiba waa Caareen waa Joxor waa Góolam waa Yaman waa Ñiit di leen char bu baax a baax a baax a baax di leen wax ñu ñëw jàppale seen doom seen rak Thiat Daouda Fall ci digganteem ak Kaw le 4 décembre arène nationale di ñaan yàlla may ma dam di félicité fii sa ball bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. di nuyu sama coach Lamine Faye sama papa Mbës di nuyu waa école de lutte Balla Gaye ñëpp di ñaanal képp ku fi am combat yaa na la borom bi may ndam. am combat géejawaay. Mhm. yaa na la borom bi may ndam ci barke Mouhamed. macha mhm. mhm. allah nuyoo bi am na solo fan nga toll ci préparation yi. waaw ñu ngi waaj bu baax a baax a baax a baax di waaj comme ni daan wàccee mais bii bii nii. moo moo gën moo gën moo gën moom la gën a wàcc moo gën moom lañ gën a wàcc parce que xam nañ ki ñuy dajal xam nañ que ñu ngi mën jiit su làmb am na expérience te ndaaraan la aussi nangul nañ ko ko. yaa ngi commencé di saafati. <laughs> yaa ngi commencé di saafati. <laughs> nangul nañ ko ko bu baax a baax a baax a baax. Mhm. mais loolu yëpp fii lay yem mais du egg si biir géew ba. du egg si géew ba ndax lan. waaw ah, parce que li ñuy teg moom attanu ko ñun ay xale lañ. Mhm. ñu papa mbës di teg. Lamine Faye di ñu ko teg Sogo Sim di ñu ko teg ñaas ñaas ñoom Abou ba Bala. Mhm. xam nga tanoor yi ci biir école bi yëpp di jaalewaale nag mooy sa. yaayam dafa wàññi dafa wàññeeku di ko ñaanal. yàlla na ko yàlla xaare aljana si barke Mouhamed yàlla doon rëcc yàlla mu doon def si kaw si kaw suuf si barke Seydina Mouhamed amiin mais xam nga adversaire bi Kaw de ci tournoi bi nga ko xamee wala xam nga ko avant parce que mbapat moom dèjà toj na ko man am naa lu ma si leer <laughs> toj na mbapat de laay Iba Mar nañ fa ba taay mu takk mu takk mu takk waxuma nag arène nationale yi nga xam ne daf ko mujjee jël loolu moom moo mujj quoi xam nañ ko xam nañ ko bu baax a a baax parce que mi ngi toj laa ji ñu ngi koy suivre ba yàlla def ñu ñu box ñu bokk si gala nag mm. moom ñi muy daan may daan muy daan may daan ba yàlla def ñu yàlla dogal suñ combat ñu war a bëri final mm. yàlla dogal ni idaali mujj ko tëgg di ko nuyoo passage suñu waay la suñu mm. grand la suñu lépp la ñu ngi séq jàmm léegi nii macha allah maa ngi koy ñaana li ci kanamam yàlla na ko gën a fuf li mu wees ci barke Mouhamed amiin est-ce que xam nga ne moo bëree nag si di jàmm gën bëree caporal bëree junior bëree ki nga xamante bi ni mooy kii këll gi bëree Samba bëreeg Rouge Bordeaux numéro 2 Kaaw Gourdin. waaw ñooñu mu bëreel ay naanaan lañ maa ngi leen di ñaanal jàmm mais ñooñ ak caat bokkuñ lan mooy différence bi sa différence tey euh, ak 2 Ziga wala sa différence ak ki nga xam ne mooy Samba Ndelem lan lan la lan la. non du mu wax sama différence man ak ñoom lenn la rek. Mhm. mooy ñoom luñ tudd nga ne. 2 <laughs> Ziga waaw. Thiat Daouda Fall laa tudd. ok ñaari tur ñaari tur laa wax. waaw ok mais instant yii lan ngay préparer sa diggante ak moom. waaw maa ngi préparer lépp lu mu war préparer ñu ngi ñuy teg lu méttee métti ñu koy tegoo aussi. waaw mais ñu ngi préparer combat 10 minutes. ñu ngi hmm. préparer combat 15 minutes. ñu ngi préparer combat 5 minutes vite fait ñu ngi préparer aussi combat une minute. non hmm. ah préparer ba tey muy xeet bu hmm. lu laaj ñu. man yàgg waajal damay pour ñëw jeexal combat bi fee non non. Mhm. pour combat bu nekkoon trente minutes dañuy pare pour bëre ko. Mhm. Mhm. dinaa sa appel nag waa Guédiawaye ñëpp ñu taxaw seen doom. di nga ñëw foofu foofu moom di nga woote ba doyal. ci mobilisation beeg yëpp xam nga ñu teewal seen rak mu dem bëre daan ci barke ma di nuyu nag sama fans bu baax a baax a baax. di ko di ko commencé si galaswaar maadaan xam nga maadaan materazi xam nga ñoom Ndeye Asi xam nga fans yëpp. ñëpp maa leen di bëgg ñoom Daouda Sow xam nga Zane Café ñoom ñëpp maa leen di bëgg waa morgue bi waaw mm. mafia sama booy nag magasin bi ñëpp maa leen di siwaar macha allah ñu taxaw ci adversaire bi ba tey amateur yi ci ne bu ngeen wuree ci ax bëre lan lan ngay wax si lool bëre lañ wax n'est-ce pas bëre waaw daan laa mën ba tey yaa ngi ci li nga waxoon jógoo ci daan laa mën daan bu la dàqee bëre na ma dàq ko daan mu jeex bu la dàqee xeex maa ko dàq daan ba tey ci daan bi fi nga taxaw daan laa taxaw dama ko seetaan si digga plateau moom ak Babacar di suñ frère maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom Babacar di ko siyaar mu ne moom xamal na ne yéenay daje final moo tax boobu mënutoon a wax ci yow dara parce que lu mu waxoon ci yow tooñ la. <laughs> non man maa ko silence de nekkul moom nga ko mais moom après dernier bi bi mu bi mu bëree yankaw yankaw daan ko mu def recours gagné ko ci lu leer naa ñi moom dafa ne moom xamoon na ne yéen ñaaree daje final yow moom da ngaa defoon ci moom code. loolu ko mais moo tax nga defoon ci moom code. bëriwuñu woon troisième combat laa ko waroon am xam na ni man troisième combat la may am man xam naa ne troisième combat laa koy am. déedéet ñaar lan leen leen dee ci tournoi bi ba kenn ku nekk doo bëgg a wax sa morom ne kii dernier moment la yow yaa ko waxoon ko fin la. bi mu naan ko boobu bëre yankaaw daan ko mu daan albarka kéré di leen nuyuwaale ñaar ñëpp passage. Mhm. léegi euh, dañuy daje dernière face bëreel man xam naa ne albarka laa war bëreel maa ngi moom bëreeguñ ñu posé ma question si moom man leen kii dama ko silence parce que man moom quatre-vingt-dixième minute koy dugal incha allah yaa koy dugal mhm. ci xeex nga koy dugale wala ci bëre wala si lan pare naa xeex pare bëre li ma koy wax yomb na Kaw Gourdin loo na xeeb ko booy dafa wàcc wàcc si tànk yi ñeme jam-jam baax a baax a baax loo baax na entraîné Hmm. pare nga pour xeex ak moom dama bëgg kay fi mu ne nii amatul luy sedd moom. da nga ko silansan mais moom pare naa pour <laughs> bëre ak moom Kaw Gourdin incha allah dinaa la ci nan. ci lëpp pare naa bëre pare xeex pare lépp. séntu nga ci combat bi ngeen ngeen am njaay joxul jóob ba kenn dem ardu <laughs> bu ko laajee dañ koy def ba mu saf sap saf sap. séntu nga ci tamit ngeen bëre ba miita stade bi yëpp yuuxu ñu miita nga dem Lamine jox la ndox mu dem Père ba seen jox ko ndox ñu ñëw ñu conseil taxawaat. no loolu yàpp samay supporteurs. eh. ok vite fait rek. tàmmaluma su ko defee dama yàpp samay supporteurs. ok macha allah ji am na solo comme ni ñu koy faral di waxee rek daanaka ñu ngi ci cappaandawu émission bi. comme ni leen koy faral di résumé rek buñ jëlee mbër caatu Daouda Fall la nee naa la bi mu duggee si làmb ba tey yàggut mais yaakaar naa ne def na fi ay performance yoo xamante bi nii tax na mu bëreeg ñoo xamante bi nii sax ñoo ko raw ci làmb parce que yaakaar naa ne làmb moom boo ci nekkee di daan da ngay avancé mais boo dee daanu da ngay dellu ginnaaw yàlla dogal na premier combat am dafa ñëw am defet ci kanamam euh, digganteem ak booy Balla bu Pape Diop Boston mais ba mu fa jógee loolu yaakaar naa ne tudd toon defet deferul la tudd nga gis digganteem ak mbeng mboora bu bàcc seeraas di baat ak tontu nga diggan gis digganteem ak doomu yof di baat ak tontu soose maane bu rëbës di baat ak tontu nga gis digganteem ak yankaw di baat ak tontu digganteem ak albarka di baat tontu mu war a jëm la 4 décembre léegi ñu ngi ci cëppaandaw bi lan nga koy yóbbante avant ngay woo say supporter li ma koy wax mooy ñaanal ko jàmm di wax mu entraîné lu wóor. nee ko eh, man kay fi mu ne nii man grand <laughs> jàmm bu baax a baax. nee na gourdin bi dina la dal de. ñaanal le 4 décembre nga am talak tekkee. amin ñëw tuus lu neex def ambiance tamit sif la nga tëdd nànk. loolu yombut. non noonu lay demee. newoon naa ko escalier la ñoom ñëpp waxoon naa première marche beeg. jàll nañ ko deuxième bi mooy troisième marche. troisième marche bi ak. première marche ban mooy gën a yomb. incha allah incha allah. première marche bi yaa la woon deuxième marche bi.

man ma dànk yóbbu na ma fenn. nag man mi soxla man maa ñëw jël. ok macha allah côté mobilisation bi fan nga ci toll parce que lamb ji bëgg nañ cee innover d'ailleurs am na ci combat yoo xam ne ku ci mel ni Bib Diop Tafaleer ku ci mel ni Boy Notaire aussi tamit dina ca bëree. Euh, doom ndey digganteem ak Boy Notaire di ndaanaan combat yu bëree bëri macha allah nekk ca combat euh, Baba Jaxal ak Pape Janka maanaam boo yu saf sapp ñoo ci nekk yaakaar naa ne boo yeexee dinañ la noyyi ci supporter caat. mënul nekk. booy ci nekk mbooloo lañ. mënul nekk parce que déjà instant bi nii gars yi ñu ngi ñu ngi si ñu ngi si liggéey. Mhm. xam nga ñu ngi def porte à porte. Mhm. xam nga di di di di di di instant jël seen xaaj di ko part di ko def ay participation yi nga xamante ni. Mhm. dañuy xool nu ñu mën a def xam nga ba dajale mbooloo bi yëpp. te incha allah. incha allah dinañ gis caat bu bees tax. jërëjëf lan ngay tàggoo. waaw di nuyuwaat ñëpp ah. Mm-hmm. di woowaat waa waalo bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. surtout waa Ndimbu mag ak ndaw. Mm-hmm. góor ak jigéen. ma kenn. nañ jàppale seen doom. ana lees lu mu la wax ci combat bi lees. non loolu loolu man ak moom la. ah non baal na jamal ci amateur yi tuuti moom la Balla Gaye yóbbantewu la benn vocal tuuti na la boo boo ko jàppee. sama mag la sama xarit la <laughs> César maa lay bégg bu baax. <laughs> César <laughs> César. ah noonu la tudd xam nga. macha allah waaw waaw di wo di woowaat suñu papa. am na amateur yu ma yóbbante na ma géej waaye dañoo miin kalaaf. am na amateur yu ma ko parce que Balla Gaye kalaaf ko génne. non ku wax ku wax kalaaf yaay loolu amul ma dem te allah. ayca woote bi sarax ok <laughs> waaw di waxaat di waxaat suñu mu jàpp ci combat bu baax a baax. Mhm. xam nga papa Lamine Faye xam nga. Mhm. Sim Abou Bébé Balla xam nga Youssou Ndour Gakou 2 fils de Balla xam mhm. ñëpp ñi nga xam sama lawbe ñëpp ñi nga xamante ne am na xam yaakaar nañ leen daal nañ ñëw mm. jàpp ci combat bi ñoom Alioune Seye xam mm. waa géej waaye ñëpp maa leen di woo bu baax a baax ñu ñëw jàpp ci combat bi di sant cappa cooli bi nag xam mm. PDG bu mag bi Aliou Lo premier Italie Sontrio xam Adama loo maa lay woo ci combat bi di woo Jibi Keita ak soxnaam xam nga di woo Ndiaga Ndiaga di woo Ndiaga Balla Gaye bu baax a baax a baax Ndiaga Fall xam nga sama doom day sama doom day sama doom day ngi xam yoon ko yónni yaa xam te woo dama garga 9 point lañ ko yónni da koy indi ko loo waaj doyoo bu ñu la jàppee nan la dóor ba ngay bëgg a de kaaw lu déwee sama <laughs> wax jërëjëf dama lay defee xolo mu soccoo la nag noonu la demee. jërëjëf noonu la demee jibi di leen jaajëfal di leen jox. <laughs> ah caat nag caat nag. des na ah. beneen des na trois trois fois sax. woo Mama Ndiaye ni ko mu ñëw mu jàpp si tigay bu baax a baax a baax. amet na mm. dara maa ngi koy woo. Mm. xam nga di woo Modou Bousso xam nga di woo képp xamante ne am na loo représenté biir Sénégal di la woo nga jàppale booy bu baax a baax a baax. jërëjëf incha allah mu jël tournoi bi. xam nga ñu ñëw feete ko biir géej waaye di woo suñu papa jaw nag. bu baax a baax a baax di woo Barési. Mm-hmm. di ko mu ñëw jàpp ci combat bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf ok maa leen siyaaree ñëpp. macha allah am na solo ji bi di ko jaajëfal bu baax a baax xam naa ne di ko joxaat rendez-vous beneen yoon moo xam koñam la moo xam din ya moo xam saal la parce que lamb ji nekk na làmb joo xamante bi nii dañ ko war a jaay te ñoom ñëpp ay ndaanaan lan ji leen dox dig daje ba beneen yoon ci seen seen lamb TV incha allah ba beneen yoon jërëjëf.